salaamaaleykum mbokki Som salaamaaleykum mbokki cees di nuyu particulièrement Marème Sissoko ak mboolem responsable Som yi fi fekk ku lim juum waaye naa ci ñaar ñoo xam ne mënu ma leen bañ a tudd muy Abi Cissé nga xam ne mooy coordinatrice pôle Som di maire Thiama di dégguma ah Clara ñu nga fekk aussi di nuyu mboolem responsable yi bu ma sañoon tudd leen ñoom ñëpp ñoom doyen Cheikh Diop ak ñeneen ak ñeneen Fasek bi toog waaye ku ma tuddul nuyu te surtout di waral particulièrement ma ñëw fii ci bés bi au delà de li ma si su ko def ci xale yi dinaa ci jukki as lëf rek mooy victoire bi nga xam ne am nañ ko ci référendum bi nga xam ne gannaaw yàlla ak organisation bi ñu teg ñoom seen ànd bi ñu ànd ci ànd bu rafet am pas-pas ànd ak ngor ànd ak seeni càmmiñ ñoom Mouride ñoom Thierno Soare ñeneen ak ñeneen def fi liggéey. bu mucc ay loolu ñu ñëpp war nañ ci jàngaa commencé man ak waa Grand Thiès mooy fu ñu àndee organiser wu am pas-pas ci li ñuy def yàlla dinañu ci may donc ñu ngi leen di vraiment sargal ci victoire boobu di wax ni que école Sombeur dina am ay bés yu néew dina am liggéey bu am sol buñ fa tàmbali. ndax président association parents d'élèves di Abou Dafé yàgg na joytu mbirum toilette école bi moom ak mboolem responsable SOM yi yàlla jàpp may ñu ñu ànd ak ay partenaires ñu ñëw ne dinañu seetaat mbirum toilette yi buñ ko defee nag tabaxaat ko ba mu mel ni mu waroon mel bu boobaa dinañ toog ak Abou Dafé ak parents d'élèves yi xool nuñ koy yoree yore leen boo xam ne élèves yi dinañ ci mun a profité di ci ko utiliser lu mu waree nee nañu aussi dinañ laalaale tuuti étanchéité école bi. dellu si tuuti rek ci ñu war ñu teew fi tey madame Cissokho dafa am initiative bu rafet bu mu jël ànd ceeg responsable yi ma tudd léegi seqat moom politique bi ci som muy jàppale xale yi tout tànk yi nga xam ne ñoom ñooy avenir Sénégal. jàppale leen ci lu ëpp solo ci lu doomu aadama di def maanaam xam-xam ak éducation yar ak xam-xam xale yi wax nañ ko léegi majorité yi muy arab muy ci nasaraan na nga jàng na nga taataan xam-xam nit xam-xam d'abord damay wax ñun africains yi bu ñu delloo ginnaaw lool par rapport à monde entier dañ koy reconnaître ñu ci dellu ginnaaw ci xam-xam ak ay pexe la ñu gën a delloo ginnaaw ndax doomu aadama ci capacité ak xalaatam moom moo def micro bi wax ñëpp buñ ci jot moo defar lumière bi mais yooyu yëpp ak yeneen ak yeneen ak avion biy naaw ak leneen ak leneen même pétrole bi ñu doon wax léegi xam-xamu doomu aadama moo tax ñu mun ko dem jëli à 3000 mètres ñu 3 kilomètres ci biir ndox mi. cent kilomètres ci biir géej trois kilomètres ci biir nga dem jëli fa pétrole ba koy nekk seetlu ko ñëw jëfandikoo di ko dugal ci oto. donc monde bi tey li ko yor compétition bi du gën a rafet du gën a baax ASC du gën a baax équipe nationale de football du gën a rafet sanse comme ni ko jigéen ñi di waxee mais li ko yor mooy xam-xam donc. bu Marème Cissokho woowee ji booy yi xale yi nee leen vacances jot na naam waaye na ngeen gën a yokk seen connaissance révisé waat bu paree ñu jël ay cahier wala yooyu jàppale leen kooku jàppale leen jàppale na leen ci lu ëpp solo ci li ñu mën a jàppale ci doomu aadama mooy njàng ak éducation mu dellu dëppoo li ñu doon wax léegi ci mbirum école somme bi nga xam ne véritablement mu ngi véritablement mu ngi nekk ci benn état boo xam ne laaj na ñu du ku nekk dugal ci loxoom ku nekk war na dugal loxoom ci biir école somme politique boobu nag nga xam ne politique développement la di woon nit ñi ñu fecc tàcc dem rek mais politique de développement la pour luy suqali sa gox luy jëmale sa gox kanam mais pas looy wut pour defal sa poche defal sa salon defaraat sa néeg toog jàpp sa njàmbur bu ñu yoree as lëf au ñu njëkkee ci salon si soxo wala ci wutal ko oto dañu ne non dañu dem ci école som jëm ko defaraat kooku ku leen ci woo leen ci politique boo xam ne moom na yàlla bëgg moom la yeneen ba bëgg moom la suñu aada bëgg di di jéem en fait dama contrôle ba ngay dugal parce que dog nga ma waaye ba tey baax na parce que loolu mooy politique boo xam ne gis ngeen ko aussi ci ni ko gars yi wuy see ñoom doyen xam ne responsable bu mag la kilifa bu mag la ak soxnaam ak waa Cité Senghor waa Darou Salam waa Ablaye Yaxin ñu toog ne la en face loolu dafa wane ni que mun nañ politique def ko ci mbaax ànd ànd bu rafet ànd koo xam ne ànd ñuy ñaw lañu di yokk waaye baa ak di jéem a attaquante te loolu yëpp ñun ñii di ànd ñoom Marème ñoom Ndouraat ñoom Fat Fall ñoom Mère Thiam yi fi wax ñun ñu maanaam ànd ci ànd koo xam ne dina duré ati ati at. te kenn du ci xeeb sa morom kenn du ci yab sa morom moo tax li ma doon wax léegi fi may daanelee mooy gannaaw li ñu wax ci xam-xam xarala yu bees yi nga xam ne xale yi war nañ ci jàng waaye malgré tout ça waruñu fàtte suñu cosaan nenañu nenañu Dieu fait toujours Dieu fait gars yi dañuy wax Dieu fait bien les choses mais Dieu fait toujours bien les choses doomu aadama rek moo koy gise interprété comme ni xam ne moom moo ko soxla donc docteur Dieu a bien fait foofu nga toog noonu dama la koy bàyyi rek continuer boo pare. waaw boo ko yegg léegi mooy docteur. comme ça il y a plein de place bi. fu may ba pare. mën naa saagal loolu mooy may daanelee mooy xam-xam xarala yu bees yi ñuy wax ni bala ko nit di jëfandikoo dëgg-dëgg mu xam ki mu doon xam li mu doon xam lan la bëgg parce que bu ngeen xoolee tey technologie bi ñu ci gën a avancé mooy chinois yi mooy coréens yi mooy mooy. japonais yi te ñooñu ñoom ñoo gën a jàpp ci seen cosaan donc Marème merci ba mu ñu war du déclaté cosaanu senegal mooy li ñu fi wane léegi léegi xale yi interprété ko magistralement jaraaf ak ñoom buur ak ñooñu woon ni Sénégal ngor ak fit moo fi mës dox sàmm sa kàddu n'est-ce pas Diop sàmm sa kàddu moom ngeen fi wane léegi ngor moom ngeen fi wane léegi ci théâtre bi bu la sa kàddu xasee jiitu ak nu mu mënta demee nga ngoy ci loolu ngeen fi interprété léegi donc nañu jàpp loolu gëm ko dinañ dund ak yéen wasalaam